jërëjëf mbokk internet yi nga xamante ne yeneen seetaan kay seetaan TV mhm. ñoo ngi si émission bi nga xamante ne moom mooy xamal ma ci seen mhm. deuxième partie mhm. ak suñu thème bi nga xamante ne thème bu am solo la muy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu di borom tarixa bi nga xamante ne moom mooy tarixatu at Tijaaniya Cheikh Ahmed Tidiane dégg ci li nga xamante ne moom nga yaatal ci ndaw ki nga xamante ne moom mooy Cheikh ma Tidiane Chérif radiallahu anhu te yaakaar naa ne après xam nañ ne ay waajuram tey nañ génn àdduna mhm. te yaakaar naa ne waajuram tamit nee nga ci sa biir wax mhm. jàngalekat la woon mhm. te amoon na ay mbooloo yoo xamante ne topp nañ ci moom ginnaaw ba nga xamante ne waajuram génn nañ àdduna bu góor ak bu jigéen ñi nga xamante ne ñoo toppoon ci waajuram nañ lañ doon dundee ak Cheikh Ahmed Tidiane waa waaw alhamdulilah euh, li ma la doon wax sànq rek ba tey laay ñëwaat comme Cheikh Tidiane yi euh, teel na wattu alxuraan ba muy am dix ans sànq wax nañ la ne mhm. bépp luy téere xam-xam yàlla mën loo na ko ko xam na ko loolu yàlla def na defoon na ko ci Cheikh Ahmed Tidiane ba muy am seize ans gis nga nattu bi nga xam ne moom la ko yàlla teg ñaari jaaxle mhm. mun nañoo wax ne Cheikh Tidiane dana ko amee ndax benn euh, ñaari way juróom génn nañu àddina te ñoom ñoo doon wéttalam ci àddina mhm. ñaareel bi mooy papam sëriñ la woon ndax bu ñu ne sëriñ mooy jàngalekat la woon ay borom xam-xam ñoo doon jóge ci dëkk gu ne téere bu ñu andi papam firiku te Cheikh Tidiane atum 16 ans la am màggagul ba toll fi mu war a toll pour mu mun a uutu baayam ci gis-gis dégg nga mbooloo boobu jaaxle Cheikh Tidiane tamit am jaaxle mm. bu ko defee nag coow li commencer jóg léegi nag ñiy jàng nu ñuy def mm-hmm. daara baayam dana fay mm-hmm. nangam ak nangam ci la na am Ahmed Tidiane duggee ci biir fi baayam doon nekk di jàngale mm-hmm. Cheikh Tidiane muy am âge de 16 téere boo andi ci kaw suuf mu jàngal la ko macha allah uutu na fa baayam juróomi at jàngale na fa juróomi at ba samp fa ay borom xam-xam Cheikh Tidiane doog jaar noonu dem ba Fass kon Cheikh Tidiane génnut muste génn lu mooy ba mu amee ñaari fukki at ak benn mooy ama ak kin jalaa ak cheikh bi Fass ba muy am yaa ngi dégg vingt et ci la Cheikh génn nag dajeeg borom xam yi nga xam ne ñoom ñooy jaylam yi ñoom ñooy borom xam yu mag yi ci Fass bu ko defee ñuy jaamarloog Cheikh yi ci xam-xam ñu di ko laaj di ko laaj di ko laaj Cheikh Tidiane di tontu ñoom dañuy wax ne sax wayuftaa fi qalbi l adawaaw Cheikh Tidiane boo koy laaj buy tontu day mel ne dafa am luñ ko bindal ci kanamam mu ciy xool di tontu. Mm-hmm. mu doonoon benn borom xam-xam bi nga xam ne xam teel na yàlla teel na ko ubbi. Mm-hmm. ci xam-xam. Mm-hmm. teel na ko jagleel moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu waaye boo ko toppee daal da ngay gis ne mbiram yi juddaale la. mais dafa masqué wu rek jàngee na ci diw ci at bi ci nangam ak nangam ak parce que wax na ci benn wax ne. dufitu dafatan waxidatan mundu ana yaafiu mhm. yaa ngi dégg fa saara awali mhm. wa axiri awali wa jus i kulli wa kulli jus i fa sirtu ana huwa wa huwa ana min haysu ana la min haysu huwa mhm. walaw suiltu an alfi alfi masalatin la ajabtu ala jawaabin waxid Cheikh Tidiane nee na bamax nañ ma benn bamax ma daanu ci pay yàlla boobu bu muy xew fekk mundu ana yaafi Mhm. fekk man ndaw laa si nu yafaa mooy ñeenti at yooyu mhm. jëmeet fekk fa la tool mhm. nee na nag ci la sama mujj doon sama njëlbeen ci la sama njëlbeen doon sama mujj ci la sama xaaj doon sama lépp ci la sama lépp doon sama xaaj yaa ngi dégg mu mujj jeex ci yàlla takk mu doon yàlla yàlla doon ko foofu nag beneen wax la lay junj foofu waaye ci ginnaaw wax ji moom a gën a intéressé mu ne law su iltu an alfu alfu masalatin la ajabtu ala jawaabin waahid buñ ma laajoon ay junni junni junni question man Cheikh yi benn question laay tontu mm, tontu junni question yooyu yëpp mm-hmm. kon ba mu koy wax fekk ñeenti at la amee ci la ko lii dikkee mm-hmm. lii preuve la rek luy wane ne Cheikh bu ñu ne diwa ko jàngal tanaaxur la mm-hmm. waaye du xaqiqatan moom xam-xamam da koo juddaale comme ni yonte yàlla Insa euh, alayhi salaam bi mu juddoo yàlla ubbi ko ci xam-xamu injil mhm. mu doon jaamu bi yàlla yàlla def ko muy yonant mhm. muy wax inni abdallah ataani allahu kitaab wa jaalani nabiyan mhm. insa bu muy nekk ci berzoom ci la waxee lii kon nag mun nañoo déggee dana juddaale xam-xam Cheikh Tidiane xaqiqatan li am xaqiqatul amri mooy dafa juddaale xam-xam ah. li nga xamante ne tey moo am mooy dafa juddaaleeg xam ah. yi nga xamante ne yeneen seetaan chaîne bi nekk Kaay Seetaan TV ñoo ngi ci seen émission xamal ma lu ñu leen war a xamal tey lenn la muy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mm-hmm. radiallahu anhu mm-hmm. boo leen déggee tariqatu tijaaniya mm-hmm. tey di ngeen xam lan mooy tariqatu tijaaniya mhm. jot ngeen dégg Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mhm. fan la ganee àdduna mhm. waaye tamit ban at la ganee àdduna ñan ñooy waajuram ak fan la jaar ci xam-xam ak li nga xamante ne tey moom la àndaale muy kemtaan muy ay asraal yoo xamante ne yàlla wàccaale na ko ak moom loolu yëpp ki nga xamante ne mooy suñu invité laaj nañu ko Cheikh Ahmed Tidiane ñi nga li nga yaatal sànq bëri na waaye bëgg nañ xam ne ginnaaw gi nga xamante ne ay waajuram bàyyeekoo nañ fi Cheikh Ahmed Tidiane nan la dundee ndax dafa toog fi nga xamante ne moom mooy aynul maadi wala dafa rex la maanaam dafa gàddaay dem wuti xam-xam wala dafa def leneen loo ñu si mën a yokk waaw alhamdulilahi rabbil alamin euh, ba tey rek li ma la waxoon euh, way juróom yi bu ñu génnee àddina situation bi ni mu demee wax naa la ko sànq mhm. moom dafa uutu baayam tasul yaakaar yi baayam nekk fa cinq ans mhm. mu jàngale doogu génn dajeeg borom xam-xam yi faas yi ba mu nekkee ci loolu ba ñu nangul ko ne mhm. yow Cheikh na Ahmadou Tidiane yi xam-xam yi zahir mhm. lu ñuy naql di ko jàng ci téere mhm. yow yaa fi man ñëpp bañ ko nangulee loolu ci la laxas di tukki nag di def ay rexla Cheikh Tidiane sëriñ la woon bi nga xam ne musut woon toog mais dafa doon wër ndax yàlla daf ko xiiroon dafa bëggoon jaamu yàlla te dafa bëggoon xam-xam ndax Euh, ba muy am quinze ans boobu bañ ko mayee soxna ba mu ci tegee benn at 16 ans way juróom génn àdduna yaa ngi dégg moom foofu dafa bàyyi soxnaam. Mhm. daf ko fase mhm. lu tax mu bàyyi ko mu ne parce que al imraatu turidul wisaada wa seex yuridul ibaada mhm, mu ne période yooyu jabaram naa ga la soxla mais moom jaamu yàlla la soxla kon seex moom yàlla daf ko bëggaloo yaa ngi dégg yàlla ak xam-xam ci la commencé wër nag ci borom xam-xam yi boroom xam-xam yan comme jàng na téere xam na ko mhm. doon na ci jaylam mhm. léegi borom xam-xam yi nga xam ne yàlla dénk ne leen ay turu yàlla mhm. ak ay ay secret mu commencé jaxasoog ñooñu di dugganteeg ñoom dug dem na ci Égypte dem na ci Irak dem na ci Màkk dem na ci dëkk Tunisie fu ne Cheikh wër na fa di fa dem ba mu daj waaye képp ku mu toogal aussi yow da koy béggalee ne yow Cheikh Tidiane yow yaay borom jamono ci yaa ngi dégg ci la dajeeg benn walli bu mag ki ñuy tuddee Mahmoudul Kurdi mhm. kooku dañ ko tënk rek ci rexlaat mhm. Mahmoudul Kurdi ba mu dajeeg moom mhm. dafa Cheikh na Ahmed Tidiane wali kooku wali yàlla bu mag la woon yàlla mayoon ko kashfu maanaam lépp luy ñëw yàlla daf koo xamal ba mu jékki-jékkee ba Cheikh Tidiane yi dajeeg moom Cheikh Tidiane mu ne ko Cheikh Tidiane loo soxla maa tala bu koy Cheikh Cheikh lan ngay sàkku Cheikh ne ko télé bi xutbaaniyatul uzma li may sàkku mooy man ma am xutbaaniyatul usma maanaam ma yilif jamono doon borom jamono ci képp ku ñëw ci wàlli yàlla yi rek sama gannaaw ngay boot man maa lay yilif sa tëbb ci sama loxo lay ne mahmadul kurdi tontu ko wax ju garaaw mu ne ko laka ak sar yow loolu li nga am ëpp na loolu mhm, mhm. borom jamono rek yow li nga am ëpp na loolu ndax yàlla may na ko mhm. ay ñoñam ay taalibeem yi kenn ku feeñ ci jamono rek borom jamono la woon ci jamono jooju kon nag moom xaqiqatan ci firi bu gàtt rek moom am na lu ëpp lool. Mhm. ci la seex defee ay raxlaatam yëpp dem màkk daje fa ak ay xeetu wali yàlla yëpp. ku mu mhm. dajal ku ne rek. Mhm. yow nga nangul ko ne yàlla cërale na la te ëllëg yow yaay séddee wali yàlla yëpp. seex nag bu mu jógee ci lool nag ah, ci raxlaatam yooyu ci wàllu gëstu turi yàlla yi ci la seex nag dal di wéet. ci doj bu ñu wax sulaal ak abi samgoon mu ngi mel ne benn xaaru xeraa bu mu nekkoon seex dafa jaamu yàlla. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane ñi nga <laughs> euh, mu nekk loo xamante ne uh-huh. macha allah uh-huh. mi ngi yaatal lu am solo xam naa ne uh-huh. temps bi des fois moo ñu ko dud may mais wallahi al euh, lu muy wax neex na te lu muy wax dafa dafa am euh, dafa yegg si xol parce que daf ko teg si li nga xamante ne moom mooy ay addila yu leer a leer yoo xamante ne tey ku dégg amul dara loo ci teggi yaakaar naa ne ñëw nga si li nga xamante ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane ba ay waajuram génnee àdduna yaakaar naa dafa def li nga xamante ne moom la ñuy tudd laxas maanaam gàddaay dem am lu mu wëri mhm. ci say biir wax mhm. dégg nañ ne mun naa ne day mel ni dafa dem test ji mhm. mais dekkul loo xamante ne daf ko wuti ji ndaxte sànq dégg nañ ci sa wax ci première partie bi yaa ngi naan dafa ñëwaale li nga xamante ne moom la ñëwaale ci àdduna te loolu moom mooy lu am parce que Mouhamadou <laughs> Kourdi mi nga xamante ne tudd nga ko ba mu ñëwee ci moom dégg nga li nga xamante ne moom la ko tudd fi nga xam ne mooy Iran Égypte mm. Mm. dëkk yu mag yooyu yëpp mm. wër na ko ci xam-xam waaye am na leneen lu mu ci namoon pour xam ginnaaw googu nag yaa ngi doon dugg fa am solo na xam naa foofu laay ñëw mooy ba mu wéetee fas yéene wéetal boromam am na lu ko feeñu <laughs> kon Cheikh Ahmed Tidiane tey dëgg-dëgg Chérif radiallahu anhu mu ñu xamoon fee ci Algérie nan la def ba tarixa bi tey ñu naan tarixatu Tijaaniya nan nga ñu si mun a leer waaw alhamdulillah Cheikh Tidiane Mouhamadul Amin Cheikh Tidiane dafay doy waar Uh-huh. bokk ni sax ci luñ koy dàkkanele maktuum maktuum maktuum mooy ku ñu nëbb uh-huh, uh-huh. waaye ndax lan moom ku mën a nëbbatu la ndax boo xoolee ku yàlla teral jox la lépp ak nu mu doon masqué woo di wër ba am na ñu wax ne sax wër na lu toll ne quarante wàll yi am na ñu wax ne quarante et un wàll yi wër na ci ñoom pour mu sàkku ci ñoom ay secret waaye nag Cheikh Tidiane radiallahu anhu euh, wàll yu antanu ko maanaam li mu soxla dëgg dëgg dëgg dëgg ci jamono jooju kenn mënu ko koo jox ndax ruwam ala kulli ki nga xam ne dafa ne bi bépp wàllu yàlla yi teg naa leen sama ñaari ndëggu bi àddina bi sosoo ba fi buftu bi di wal yaa ngi dégg bépp wàll yi rek maa la seefe maa la féetee kaw xam nga ku wax loolu tamit bu buy wër ay wàll yi yàlla ne dafay sàkku ci ñoom dara yow war nga ci amee dégg-dégg ne mm-hmm. moom dafay jàngal nit ñi ne mm-hmm. nit war ngaa am yitti ci xam-xam war ngaa bëgg yàlla ba mu demee foofu nag ci doj googu ñu ñëw ci rela euh, sulaal ak abi samxun ba mu nekkee mm-hmm. foofu moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dafa nekk foofu di wéetal borom di jaamu yàlla ci ay turu yàlla ndax moom jàppoon na ay tarixa yu bari ñu jox ko ay turu yàlla mu koy liggéey di ko liggéey di ko liggéey foofu la Cheikh Tidiane wéet amatul benn soxla naa nachitan fil mm-hmm. ibadati adaaw mm-hmm. ku sawaroon la ci jaamu yàlla amatul benn soxla ci kaw suuf mu ne ci loolu ne ci loolu ne ci loolu ba Seydina Muhammad sallallahu ki nga xam ne moo gën ci mboole mbindaafoo di yàlla yi mu dal di ko feeñu feeñu gi nag du ne Cheikh Tidiane dafa doon nelaw mu fekk ko ci gént mu feeñu ko ndax Cheikh Tidiane jiitu na daawoon na gis yonantu ci ay gént gis yu dëggu yu baree baree baree baree bare foofu nag ci la ko yonent yàlla moom it feeñu jaxran comme ni nga toogee ni ma toog nii muy ñaari jëmm yu daje ci lu dut nelaw ci lu dut nelaw yàq zatan bila manaamin yaa ngi dégg daf ko gis jaxran ci lu dut nelaw foofu nag am na borom xam-xam yi xam ne dañ ne yonent bi moom ginaaw bu mu fàddoo kenn mënu koo gis yàq zatan mhm. yaa ngi dégg kenn mënu koo gis jaaxran mhm. waaye foofu xëy na émission bi da ko mate mhm. waaye dinaa ci cof tuuti rek yonent bi dafa ne man raani fil manaami fa sa yaraani fil sa yaa ngi dégg aw ka anna ka annahu raani fil yaqzati képp ku ma gis ci nelaw yaa ngi dégg dang ma gis ji ci yaqza ci lu ludul nelaw wala boog képp ku ma gis ci nelaw man nga gis ndax li ànd seytaan laa yatamassalu biya seytaane mënut jël sama melo man yonent bi kon yonent bi boo gisee ci gént moom nga gis mhm. te wax na ne ku ko gis ci gént da nga ko gis ci jaaxraan mhm. te Seex Tijaani ndawam musu tàggale ko di gént yonent bi di ko gis kon yonent bu jékki-jékki ba feeñu Seex Tijaani mu ne ko lépp loo jàppoon mhm. loolu la ko wax bàyyi ko ana cheikhuka wa murabbiuka al abar gis nga lépp loo jàppoon ci xeeti tarixa ci ay turu yàlla mhm. tere naa la ko arrêté ko mhm. Mhm. man maay sa sëriñ man maay ki lay yar kon ndekentewoo li Cheikh Tidiane yaa ngi dégg axasa cheikhu an suyuuxi fi amin laka taaha minhu sawa u intima loolu la bàyyi wax neen Cheikh Tidiane jëlee na ay ñu sëriñ yu pari waaye kenn la askanoo te moom rek benn sëriñ la mës a am te mooy yonente yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam yonente bi nag ci la ko feeñu boobu fekk Cheikh Tidiane mu ngi am 46 ans mhm. la Cheikh Tidiane amoon 46 mhm. ans boo ko duggee ci wàllu calcul mhm. moo jàpp waliyu li mu waliyu boo ko calculer 46 la waaw bi 6 la laam bi 30 la yaa ngi dégg yaa bi 10 la mooy 46 ci la ko yonente yàlla moom feeñu jahran wayak zatan mu jox ko lan mu jox ko wird at tijaaniya lépp lu mu jàppoon mu ne ko bàyyi ko looloo waral tijaan buy jël wird dañ ne bépp tarixa boo jàppoon bàyyi ko ndax yonante ba muy jox Cheikh Tidiane wird tarixa bi yonante bi moo ko moom ba muy jox Cheikh Tidiane wird daf ko ne lépp loo jàppoon na nga ko bàyyi ndax man maay sa sëriñ man maay ki lay éduqué ci la ko joxee nag astaghfirullah ak salaatul fatih macha allah si la ko joxee li nga xamante ne moom mooy astaghfirullah ak salaatul fatiha mm-hmm. kon foofu dinañ fa déggee tarixa bi mi ngi am ndigal ci nga mm-hmm. xamante ne tey mooy gën di mindeef mm-hmm. tey buñu naan jullit dañ naan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmed Tidiane ñi ngi xam naa ne waxtu bi xaw nañu dab mais dañuy euh, jot am yu bëri yu ñu xaw a euh, dugal ci biir am yu ñu bàyyi sànq ñoo ngi dégg si sa wax nga naan Cheikh Ahmed Tidiane ku mënoon a làqatu la mm. ngir ay ngëneel yoo xamante ne ay kéemtaan yoo xam ne jox na ko mm. te xam nañ àdduna am na xam ne bu teelee feeñ rek mën na demee neneen tey dañuy dégg li nga xamante ne mooy baatu katmiya ak xatmiya loo ñu mën a cofal si lu ndaw <laughs> ci loo xamante ne tey mu doon lu ama am solo loo xam ne di ñu ko cofal rek si kalima yooyu ah Mouhamadul Amin <laughs> baatu loolu buñ ko doon leeral ci dëgg-dëgg leeral mhm. ci bu dee ci wàllu bind la mhm. war na jëm ci lu ñuy tudd ummahatul kutub maanaam ummahatul kutub <laughs> boo ko déggee booy mooy ay téere yu mag yu baree baree baree baree bare ci xatmiyatu ak katmiya mais ci gàttal ci gàttal ci gàttal ci tënk ko rek mhm. katmiyatu moom mooy lu nëbbu yaa ngi dégg. Mhm. xatmiyatu moom mooy ki nga xam ne moom moo kastare. Mhm, mhm. bépp may bu yàlla di jox jaam yi. Cheikh Tidiane moo ko kastare. katmiyatu boo ko déggee mooy jagleel bu jóge ci yàlla. ñëw ci yonant bi ñëw ci Cheikh Tidiane loolu yàlla ak yonantu ak Cheikh Tidiane miñ ko jox kese ñoo ko xam. keneen xamu ko malaaka yi xamuñu ko. jinne yi xamuñ ko nit ñi xamuñ ko loolu la ñuy wax kutimta fi xadaraatil xaqi laysa si wal muxtaari yadrika laa insu wala maliku lakin tajallayta fil akwaani jumlatiha is anta anta wa minkal fulko wal falaku kat miya boobu xaqiqatan yàlla ak yonenu Cheikh moo ko xam ñaareel bi mooy xat miyatu bi nag mooy imdaad mooy maqaama bi nga xam ne yàlla ci boppam moo ko jox Cheikh Tidiane mu ne la mhm. képp kuy wàlli yàlla képp ku nar a doon ji wàlli yàlla sa jamono mhm. jamono juy ñëw ba ku doon wàlli yi rek yow ci sa ndigal la doonee wàlli loolu la ñuy wax ne yaa ngi dégg moom mooy tëbb bi nga xam ne moom la Cheikh Tidiane di tëbb awliyaa yi moo waral nga gis kilifa mu jaamu yàlla ba tollu ne war naa mën a sos tariixa mm. mu sàkku bootu ci ginnaaw Cheikh na Ahmed Tidiane ndaxte boo sàkkoo tariixa tamit tëbb yi yëpp tamit moom moo la koy joxaat mm-hmm. kon nag fi ngay mujjee na nga fa njëkkee mm-hmm. ndax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moom mooy joxe tëbb yi mm-hmm. looloo tax nag euh, Cheikh Ibrahim di wax ne mu dun wa gayruhu mustamidun mhm. wa man yaqis amiran bi mamurin fa alay fa alay rita u mhm. fa zay seyxu shamsun wal qutubu kawaakibun taxibu samsu xiina zarra zaka u mhm. nee na moom Cheikh Tidiane moom mooy tëbb nit ñi maanaam mooy yokku nit ñi wa gayruhu ku dul Cheikh Tidiane mustamidun da ngay yokk dangay ngay sàkku mu ne wa man yaqis amiran bi mamurin kuy jaawale buur ak baadoola nee na fa alay rita u kiiraay bu rëy jàpp la nee na Cheikh Tidiane buur la ku moom rek baadoola ndax ñëpp rek ci moom la ñuy jëlee moom moo am di joxe. Mhm. mu ne Fasa Seexu Serigne bi di Cheikh Tidiane mhm. mu ne Samson ñu ngi ci xatmiyatu bi de. moom dëgg-dëgg moom mooy jant gi. nee na wal xutubu mbooleem wàlli yu mag a mag yi. Mhm. kawaakibul ay biddiw lañu. dëgg la dëgg la nee na taxiibu Samsu. yaa ngi dégg xëy na zër rasu taxiibu nujum xëy na zër rasu kaaw. nee na moom biddiw yi moom heure bu jant bi nee tël rek. biddiw yi dañuy faru kooku mooy Cheikh Tidiane loolu mooy xatmiyatu wallahi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif xam naa ne boobu thème la <laughs> spécial parce que dinañ ko bàyyil beneen thème parce que uh-huh. liñ si war a yaatal uh-huh. bëri na te uh-huh. yaakaar naa jaam yi dañoo soxla li nga xamante ne mooy katmiya ak xatmiya waaye Cheikh Ahmed Tidiane ñoo ngi si tariqatu Tidiane yi lan mooy xadab bi xadab bi mooy objectif bi est-ce tey ñu bëri xam nañ tey lan moo tax Euh, tarixa tijaan ñëw mm-hmm. ak tarixa tijaan ndax jigéen mën na ko jël wala xale mën na ko jël wala dafa am âge boo xamante ne si nga koy toll mën ko jël mm-hmm. lan ngeen ñu mën a wax ci loolu waaw alhamdulilah tarixa tijaan hadaf bi dëgg dëgg dëgg al hadaful asaasi li ko mm-hmm. tax a jóg dëgg muy jël jaam ji mu omat jaam ji omat ko omat ko ba àggale ko ci borom macha allah ba jaam ji toll ci dimension bi nga xam ne du yëgati dara du gisati dara du xamati dara lu may yàlla suñ borom xaal gi la Cheikh Tidiane bëgg omat jaam yi mhm. mu àggale leen foofu mhm. moo tax ñu ne dëgg dëgg tarikat Tidiane hëdëf bi mooy chammu raihatu xaqatu muhammadiya mhm. mooy nga fexe xeeñtu xetu xaqatu muhammadiyatu dégg ñaari hëdëf nag am na ci hëdëful amatu ak hëdëful xaasatu xadaful xaasa moom mooy wusulu ila zaatillahi subhanahu wa mooy àgg ci yàlla waaye xadaful amatu mooy képp ku jàpp tarixa bi am nga garanti garanti gi mooy nu mu mën a mel dara du jaaw da nga dugg àjjana ci gàttal da nga dugg àjjana loolu mooy xëdëful am bi mhm. mais xëdëful xaas bi mooy tarixa bi ku ko jël da nga am lu ëpp àjjana parce que wa ridwanullahi akbar mhm. ngërëmande yàlla moo gën a foor àjjana te mhm. moom mooy al wasulu ila zatillahi subhanahu wa mooy nga àgg ci yàlla loolu mooy xëdëf bi ñaareel question bi mooy ndax jigéen mën na koo jël wala ndax góor hmm. mun na koo jël wala ndax ndaw mun na koo jël wala ndax toppkatu yàlla mun na hmm. koo jël ndax mooykatu yàlla mun na koo jël hmm. loolu Cheikh Tidiane boo demee ci jawaahiru maani nee na aasi mën na jël tarixa bi aasi mooy kuy mooy yàlla kooku moo gën a yelloo sax pour jël tarixa bi que kuy topp yàlla bokkut ak compréhension yi nit ñi jàpp léegi tarixa bi boo ko jëlee la lay dof loo ndax lu tax ndax xale waru koo jël tarixa bi ku sàggan waru koo jël waaw bu dee tarixa bi dafa jug pour jubal nit yaa ngi dégg. Mhm. kon kan moo gën a yàlloo jël tarixa bi. Mhm. mooy ku jubut ku jub kay tarixa bi soxlawu ko. kon nag mooy kati yàlla Cheikh Tidiane nee na tarixa bi mutlaq la. Mhm. dañ ko boyalal pour ñëpp. du lu ñu tënk ne kii moo koy jël kii waru koo jël. dégg nga mooy yàlla mun na koo jël topp yàlla mun na koo jël. góor mun na koo jël jigéen mun na koo jël ci ase boo mun a toll maadaamay mesure nga rek war nga mën a jël tariixa bi ndax tariixa bi luy gaañe new fi lu tax istixfaar moo fi ne jéggalu yàlla kuy tooñ yàlla moo ko ajoo mhm. ak julli ci yoonante bi sallallahu alayhi wasallam julli ci yonante bi boo amul njàpp sax mën nga koo def kon na ku sàggan sax mën na koo utiliser mhm. ak lan baat bi nga xam ne moo gën ci baat yi moom mooy laa ilaha illallah kon tarixa bi dañ ko boyal pour ñëpp góor jigéen mhm. mag ndaw mooy yàlla topp katu yàlla tarixa bi ku ko soxla rek amoo droit nga gàntal ko mën nañ ko koo jox. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane xam naa dañuy ñëw si suñu ñaari question yi nga xamante ne. Mm. moom moo mujj donte question yu bëri na macha allah. Mm. waaye la garwa mm. parce que boo leen déggee suñu invité bi tey di Cheikh Ahmed Tidiane ñi nga mm-hmm. li nga xamante ne moom la wax si ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Mm-hmm. radiyallahu taala anhu mm-hmm. da nga xam ne ku ko maîtriser la. macha allah ñoo ngi ñaan yàlla xam-xam bi yokku. Cheikh Ahmed Tidiane xam naa ñi eh, xaw a kii tuuti rek. pour ñi nga xamante ne ñoo doon ànd ak euh, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu muy ay asxaabam mhm. tey ñan lañ ci mën a cité ñoo xamante ne ñoo gën a siiw euh. ñoom lañ gën a xam ci xam-xam te mhm. topp ko ah en tout cas daal asxaabu Cheikh Tidiane yi bari woon nañ lool Cheikh Tidiane yi yonent bi ba muy génn àdduna dafa bàyyi cent vingt quatre mille saxaaba la bàyyi Cheikh Tidiane yi ba muy génn àdduna cent vingt quatre mille taalibe la bàyyi allahu akbar yaa ngi dégg mhm. te wax nañ ne ci biir taalibeem yooyu amul kenn ku dund ba deelu mooy yàlla war na la yonent bi jaxran ci jamono jooju mhm. moo tax Cheikh Ibrahima Niass bu mu leen dën wooy dafa ne lahu saxbun mhm. ka ak maarin zawaw fathin wa asrarin wa tamkinin wa anwaarin fa kullu ah, ahli irfan ka xaawi sabqi ahrazim ma addamri lil xaatim wa najlil misri zal alim falaa lahu wala waani dafa am ay àndandoo yu gën a fës ci Cheikh Ahmad Tidiane yaa mooy waxuma ñi ne ci réew mi rek. Mm-hmm. waaye jamono ji Cheikh Tidiane doon dund amoon ay àndandoo yu doyoon waar. Mm-hmm. danaa ci tànn Mouhamadul Michiri. danaa ci tànn Mouhamadou Damrawi. Mm-hmm. day danaa ci tànn Aline Tamasini danaa ci tànn Aline Xarasimi. ndax ñeenti yi ñoom bokk na ñi nga xam ne def doon jeexintal bu rëy ci dundu Cheikh Ahmed Tidiane ñii feeñal nañu mayu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Aline Xarasimi moom mooy ki nga xam ne Cheikh Tidiane radiallahu anu demoon na ba wax ko ne sax kii mooy nekk sama xalifa mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. far nag xalifa moom faa mu mujj ñëw ci sa gannaaw mu mm. doog la uutu Aline Kharaazimi ci la génnee àddina ndax mu jiitu Cheikh génn àddina ndax jege bu mu jege woon Cheikh Tidiane ak nangul bu mu ko nangul Aline Tamasini yàlla daf ko mayoon ci ay kéemaan heure bu bëggoon ziyaara Cheikh Tidiane mujjee naa léeg-léeg mu jógee Tunisie di ñëw euh, diggante Tunisie ak Fass da ngay def mu def ko benn jéego àgg macha allah moom mooy jékki-jékki ba ñu jox ko ay tàndarma mu jékki-jékki mu ne sir bi barakati cheikh demal accax ci barke Cheikh Tidiane. kooku ba muy def loolu da ngay jékki-jékki tàndarma bi ñëw Cheikh Tidiane di ko utiliser. macha allah lii de samay taalibe bu ñu wax Aline Tamasini moom moo ko andi fii. benn jour demoon na ziare Cheikh Tidiane ba yore fas ba mu koy ziare ba muy ñëw fas bi dee mu dal di ñëw xool xool xool mu ne ah fas bi moom sama fas bi may ziare sama sëriñ muy dee mu ne fas bi na nga jóg ci barke Cheikh na Amada Tidiane fas bi dekki yaa ngi dégg mu yëg kooku nag moo tax Cheikh Tidiane oo ko wax ne tarixa bi am na ay karaamatu waaye buñ ko feeñal looloo tax ñu interdit karaama ci tarixa Tidiane waaye dañ cee fees dell dell dell ak xeeti karaama kooku lañuy ñuy wax Aline Tamasini ñaari Aline yi ak ñaari Mouhamad yi laay wax tey Aline Kharazimi ak Aline ni ak ku ñuy wax Mouhamadul Michiri kooku amul jabar amul doom amul dara xam nga lu tax amul jawar amul dara bëgg bi mu bëgg Cheikh Tidiane ak ittewoo bu muy ittewoo ci tarixa bi di ci bint boo déggee jaamia bu mu Mouhamadul Mishri ci biir tarixa bi kàngaam yëpp xam nañ bokk na téere yi ci ëpp valeur tey jii lépp loo ci liiroon nettali ko ci Cheikh Tidiane rek dañ la ko nangul moom moo ko bint nee na téere googu mooy jabaram mooy doomam mooy léppam lu ko dugal ci loolu mooy bëgg bi mu bëgg Cheikh na Ahmed Tidiane yaa ngi dégg kooku la ñuy wax Mouhamadul Michiri waaye ki may mujj nag ti ma sopp ko lool mhm. mooy Mouhamadou Damrawi Damrawi mhm. tur bu raar la mhm. ñu bari duñ ko dégg Damrawi am na ñu ko am Mouhamadou Damrawi la tudd kooku yàlla dimbali woon na ko mu am ubbeeku bu rëy ci tarixa Tijaan kooku 24 heures sur 24 waxtu bu ne yàlla daf ko doon dimbali muy gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëhran ci lu dul nelaw 24 heures sur 24 laa la wax waxtu bu ne da daan gis yonent bi jëhran ba yonent bi di ko laaj ay affaire mu di ko tontu léeg-léeg sax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yóbbante ko ci yonent bi léeg-léeg yonent bi yóbbante ko ci Cheikh Tidiane yàlla mayoon na ko kashf boobu ci tarixa bi ba am na benn secret bu ñuy wax dawrul anwaar secret boobu ci tarixa Tidiane rek nga ko mën a fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam damra wi la feeñu mu jox ko ko mu ne secret bii nag mu ko joxal Cheikh na Ahmada Tidiane yaa ngi dégg kooku moom la ñuy wax Mouhamadou damra wi benn jour ba mu gisee ak yonent bi yonante bi laaj na ko ne ko est-ce que xam nga lan moo tax waxtu bu ne nga feeñu ma mu ne ko ah déedéet lan la mu ne ko du say di du say jaamu yàlla lenn rek moo tax bëgg bi nga bëgg Cheikh na Ahmada Tidiane moo tax ma jagleel la waxtu bu ne nga gis ma ñii daal ñoom ñooy saxaaba Cheikh Tidiane ci gàttal mm-hmm. waaye kenn ku ne rek boo ko jëloon kitaab la waaye tamit kéemaan la jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane euh, ñi mun naa ne tey question yi nga xamante ne moom lañ fi amoon euh, doon leen ko jox donte bëri na mhm. mais temps bek euh, motewul incha mhm. allah dina ñëwaat si ay jamono mhm. ñëwaat si ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu point par point Cheikh Ahmed Tidiane mun naa ne yan kàddu tey ngay tàggatoo ak askan bi nga xamante ne tey ñoo lay bàyyi xel ci émission bi nga xam ne mooy xamal ma ak surtout jeunes yi lan nga leen ñuy wax ñi nga xamante ne dañoo bëgg tarixa tijaaniya mhm. waaw alhamdulilah alhamdulilah ba tey ni ñuy tàggoo ñëpp rek mooy di dénk nit ñi mhm. nañu gëstu wàllu yàlla bu mel ni Cheikh Ahmed Tidiane parce que gëm naa ne képp ku ko gëstu danga ko xam ku ko xam da nga ko bëgg ku ko bëgg a texeñ ñaareel bi mooy li may dénk ndaw yëpp ñi jël tarixa bi jàpp ko nañ ko jàpp mu dëgër mhm. yaa ngi dégg nañ koy jëfandikoo ci waxtu yéeg ci heure yéeg ni ko Cheikh Tidiane yi bëggee ni ko yàlla bëggee ni ko yonente bëggee képp ku jëlul tarixa bi aussi bul tiit ci sa bopp mhm. boo ko bëggee rek jël ko mhm. ndax tarixa bi tënkut te gaañut mhm. dafa ñëw pour faj feebar yi fa wirdil abil abbas yi li daayil di ay na dawaay wirdu Cheikh Tidiane yi jàngoroy jaam yi ñoo ko tax a jóg ku am jàngoro rek kaay wu si Cheikh Tidiane léegi mu fajal la ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk internet yi nga xamante ne yéenay seetaan chaîne bi nekk Kaay Seetaan TV. ci seen émission xamal ma. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane ñi ngi ci question yi nga xamante ne tey laaj nañ la ko nga tontu ko si tontu bu leer alhamdulilahi rabil alamin waaye tey mënuñu tëj suñu émission te duñu gërëm suñu papa mi nga xamante ne tey jii moom mooy Cheikh Ibrahima Faye mënuñu ko bañ a gërëm parce que dafa doon koo xamante ne dafa yaatu si tarixa bi waaye dafa doon koo xamante ne dafa bëgg njabootu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif te bëgg njabootu Cheikh Ahmed Tidiane mooy bëgg ñi nga xamante ne ñooy ahlul bayt yi di surtout gën di mindeef Seydina Muhammad te loolu laa garwa parce que ku bëgg yenent bi la ku ko wone ci ay famim la waaye ku ko wone ci ay doxalinam la kon ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax di ko gërëmee tamit suñu xulafa yi nga xamante ne ñoo ngi Sénégal ñu taxawal fi li nga xamante ne mooy tarixatu tijaaniya taxawal fi li nga xamante ne mooy diina l'islam ñoo la ñuy gërëm bu baax a baax waaw mënuñu fàtte ki nga xamante ne moom moo caméra émission bu taaru bii tey muy Mama faatu Gueye waaye tamit suñu réalisatrice bi nga xamante ne moom mooy soxna Fatou Faye ñoom la ñuy gërëm bu baax a baax ci li nga xamante ne moom lañ def di leen jox dig daje ci seen beneen émission bi nga xamante ne moom mooy xamal ma jërë ngeen jëf